du ma ma jërë ngeen jëf waaw jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul jërëjëf Cheikh déglu mun jërëjëf. jërëjëf imaan moo am islaam moo am ihsaan moo am yàlla yonent bi Sëriñ Tuuba déglu leen tuuti ñett moo am iman islam ihsan niyatul xayri moo am xawlul xayri moo am fi'lul xayri moo am leneen amut bi imaan amee islaam am ihsan topp ca niyatul xayri moo ci topp xawlul xayri moo ca tege fi'lul xayri moo ca tege yéene lu baax wax lu baax def lu baax amul leneen leneen lu mu doon feneen la jëm mbaa ci ñeneen mbaa du fii te du ci ñun niyatul xayr wa xawlul xayr wa fi'lul xayr waaw dafa feebar yóbbu leen yëkkati leen yóbbu leen yëkkati leen ko waaw da leen ko tëral bu ko dindil dara bàyyi leen rek yéen tamit bàyyi leen waaw bàyyi leen bas. tey jàll la. mooy Mamadou. ki mooy Mamadou doo ñoom de Mbacke ki mooy Mamadou Issa ki mooy Mamadou Issa doo ñoom de dafa yor kun fay kun Mamadou Issa ngi ñëw Mbacke doo ñoom de dogal taxaw ma dogal taxaw Mamadou Issa taxaw laa ko def loolu taxawal Mamadou Issa